andi fii tey deuxième réunion comité régional gestion mo épidémie xam ngeen ne région de Thiès dafa am premier cas bu coronavirus ci Mbour loo gouverneur biñ a ko ko jafalé euh, rapport bi mu oote réunion bolé ci maire Thiès bolé ci préfet yi bolé ci force de défense et de sécurité bolé ci administration bi parce que même xeex bi buñu war nañu fexé bo population yi jot ci pour population jot ci il faut que maire yi aussi dugal ci seen loxo wax nañ ko lotax maireu ties Thiès nga xam ne moo ñu autour de tous les maires ñëw taxawuñu te ñuy dimbali mom bi mu def na plan wan ñuko plan de lutte surtout parce que li ñu wax légui jaka yi il faut que ñu set ni ñuy xel di défé ba nga xamne ci bir jaka yi aussi rassembler ñu mën ko limiter loolu aussi bu ñu waxee préfet jël gouverneur ji jëlee instruction chez préfet yëp nañ def ay comité départementaux de gestion des épidémies mais du loolu sax dem ba ci suuf sous préfet sax danañ def comité local de gestion des épidémies xam ne foofu bàjjenu gox yeeg infirmier chef de poste ak radio communautaire également ñu dimbali ñuy xeex loolu bu ñu ko Mairie maire yi jàpp ci euh, euh, préfet yi sous préfet yi jàppati maintenant nak am na aussi il faut que ñu aar comme ni ko président de la république la waxoon muy agent de défense et de sécurité muy police gendarmerie sapeur pompier parce que lu ñuy wax wax mesures yi ñuy wax yëpp ñom ñoo faire appliquer lo mais il faut aussi ñom ñu mun leen former ñuy xam ci fièvre bi ndax mëna ar aar ñooñu aussi nga xam ne ñoy liggéeyal pour askan wi. gouverneur jël na ay mesures pour que lepp luy rassemblement ju téré ko ci région bi lepp luy rassemblement di ngenté de ay tak ak yooyu yëpp ñu parce que day propager maladie bi parce que bu xasee ba ñëw fi ci région bi rek amatul jëfu caaxaan kep ko fay def rassemblement demee ko def ko fenen mais ko defee ci région bi lolu préfet yi nañ ci jël ay.